son excellence le président Macky Sall le message bi mu def ci pour à l'endroit de la nation sénégalaise yaakaar dafa jël ay mesures yu am solo mesures yoy nak ñu koy saluer ci féliciter parce que mesures yo xamné pour fagarou la pour Ar Sénégal waye aussi jappalé ñi nga xamné ñoy nek ci kër yi nek ci famille yi nga xamné yalla dafa def ñu néew doolé ngi encourager féliciter son excellence le président Macky Sall

mesures d'accompagnement mu des la lutte pour que pour que mesures mesures concernant la santé nous interpeller les ñi famille parce que si famille au cœur en fait ci parce que c'est la santé avant tout et je pense que la responsabilité dans cette euh, problématique jigéen ñi kenn lancer un appel à toutes les femmes du Sénégal pour que nous jël ay mesures de nga d'abord et de sécurité pour que set nekk fu set aussi seen bopp seen famille aussi ñu toog ci kër yi parce que président parce que ni ko vraiment ba ngeen endroits en masse aussi aussi des mesures de et de propreté pour que ko

ñu am ci nag ñaari mesure yuñ ci jël bu ñëkk bi dañu fexe ba nga xamné ñi nga xamné ne ji ay sëriñ daara lañu wala yi xamné ay xale lañu tey identifier lañu identifier lañu bëgg a dellu seen ay seen ay seen ay localité dañ leen jàppale pour que loolu mëna nekk ñu indi ay ressources jàppale ko parents yi nga xamné ñoy ñooy accueillir xale yoyu benen deuxième point bi moy xale bo xamné ne ci mbéddem dañu fexe tey dina jël dindi la ci mbéddem mi parce que bëggutu ñu gis benn xale ci mbeddu Dakar yi et donc au niveau du territoire national xalé yo dina leen jël placé dans des centres d'accueil ay centre dédiés à cela centre yo xamné ne loolu moo taxoon mu juk ñu fexé ba tek leen fa jappalé leen nekkal dans de bonnes conditions de santé et d'hygiène ba nga xamné ëllëgëm si bu ñu mëna retourner seen famille ñu retourner leen kon loolu mooy ñaari mesures fortes ñu jël di ci lancer un appel nak la communauté képp koo xam ne jigéen nga képp koo xam ne deeyu daara nga wala bàjjenu gox ñu ngi leen di interpeller pour que à la base ci commune yi ngeen fexe ba loolu ñu mën ko matérialiser ñu mën ko dëgëral képp gis xale bu ne ci mbedd mi dañu fii y a un numéro 116 pour dire que xale yaa ngi ci mbedd mi gox lañ toll dañuy dépêché suñu ay service ñu dem indi leen indi leen fii centre Gindi wala indi leen ci yow centre yi nga xam tamit ay centre spécifique nga xam dédié pour la prise en charge des enfants qui sont en situation de rue